Abdou Khadre ko ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm jërëjëf alors ñu tàmbali waxtaan wi ak wàllum politique ak république bu Sénégal gi nga xam ne fi mu ne daloo na ak ngornamang um, bu bees am na ñu génn am na it ñu dugg ci wàllum forme yow naka ngay uh, naka nga gisee bile attelage bu yees waaye gouvernement bu saful dara gouvernement sur place la amul dara luñ fi sol gouvernement stratégie la pour préparer seen victoire ak seen campagne gouvernement directoire sax la directoire ñoo mhm. xam ne nii mën nañ laa may mbooloo mën nañ dem campagne et puis euh, dosé ko Thiès pour nax leen leen def affaire raay pour que waa Thiès waa bon votel la foofu au détriment de Idrissa Seck et de Babacar Diop ñeneen ñi nga dugal fa yi ay jigéen ñi tuuti pour ñu montrer ni le genre a été plus ou moins respecté gouvernement boo xam ne trente neuf personnes ci nit ñi di bëgg a dee courant bi cher euh, dund gi cher donc li ma jàppoon mooy pour gérer la transition au moins mën nga def quinze mais situation bi ñu toll nii moom vraiment lii moom du gouvernement dara dama jàpp ni sax taaga sénégalais yi la kete mettre ce gouvernement là quoi ñu bon mënuñu ci dara il faut ñu respecté ko. Mhm. Euh, ñoom ñoo nekk ci yëf yi ni muy doxe bon euh, ñeenti weer soriwul. bu dee sénégalais yi dañoo tàyyi comme man ci doxalin bi nañu jël seen disposition ñu mën ko dindi euh, démocratie moom ay xob la amul xulo amul xeex amul sànni xeex amul contesté na nit ñi dem vote ji ku nekk votel ci nga bëgg a vote su dee sénégalais yi li ci ëpp ñoom la ñu faral bëgg ñu continuer xayru démocratie moo mel noonu su fekkee ne nag ñi bëgg ñu soppeeku ñoo ëpp ñu jëlee leen fi ñu jëlee leen euh, dafa mel ni sax ndax wàcc nañ ci terrain bi laaj askan wi lu bari ci ñoom ñoom dañu ne xaaruñ dara ci gouvernement bu bees bu bi ñu teg euh, lan moo tax d'après yow citoyens yi xaddi euh, te xaaratuñu dara ci régime njiita réew mi nga xamante ni ba fiñ ci toll mooy seen njiit. man ak man ak ñoom yi man ci laa bokk xaaruma dara ci gouvernement bi lépp lu may def ba suuf ba mu leen parce avec gouvernement de démagogie la nii ñëpp ñu mën a wax lañ jël euh, jël parce que tey boobu du jaay Fatick jigéen yooyu nga xam ni PDS lañ nekkoon wax fa lu ne def fa lu ne tey ñooñu ñoo ñëw nga leen di jox ay possible Aliou mi nga xam ni lu nekk la yàq Macky Sall tey mu ñëw rabalé waat encore li mu waxoon yëpp nga koy jox ay ministère mm-hmm. ñooñu lan la ñu fonk seen bopp bëgg ko mën a yaakaar ci ñoom tous dara naada donc de ce point de vue là ak ñooñu ñoo bokk parce que xam nañ ni ñii politique a jóg Mm-hmm. waxuñu dara lu jëm ci cherté déggoo benn sanction ci li xew Sénégal amul benn jéego bu ñu teg buy wane ni ñoom dégg nañu jafe-jafe Sénégal de ce point de vue là lan ngay xaar si ñi Euh, mais mais monsieur Sanogo est-ce que yaakaaroon ni euh, team bi nga xamante ni seen candidat moo ko jiite di njiital man bi Amadou Ba ñoom mënoonoo def liggéey bi nga xam ne seen leader mu ngi koy xaar cest à diir ñi meroon askan wi ci bëri nga xamante ne dañ leen wanoon ginnaaw ñu fexe ba xëccal leen ci ñoom est-ce que en un en si peu de temps loolu war nañ ko mën a mën. bi mais loo mënul ci loo ci at ak juróom ñeenti at ak genn wàll mën nga ko ci ñeenti weer mënul nekk. Mhm. li ma doon xaar ci ñoom mooy ñu indil ñu ay profil ñoo xam ne ñu bees lañ ñu bëgg seen bokkuñu benn parti ñu ne cinq mois yi dañuy jël ñoo xam ne ñu politique ñu jox leen poste de responsabilité yi ñu songu jafe-jafe sénégalais mais ñii ñii mënuñu bu dee ñii rek la sénégalais yi jëf bëgguñu encore ak Macky Sall nguuram mhm. Mhm. bu dee ci ñii lañ yaakaar voilà sauf que bon peut-être que dinaa relativiser parce que sénégalais yi aussi seen mbir kenn xamu ñii mën nañ campagne bi jolli ñu indi xartu mi xaalis bu bëri yi ñu mel ni du ñoom su boobaa nag ñu xam ne seen bëjum kanam ñoo ko fayalul seen bopp. <laughs> monsieur Sanogo temps bi li ci des bëriwul li dese Macky Sall kon ci bopp nguur gi bëriwul mais est-ce que politiquement war na am stratégie pour neexalaat askan wi ko wan ginnaaw en tant que fin stratège politique comme ni nga koy waxee. mais neexal neexal askan mi ngi commencé d'abord pour marquer le pas moo doon ci gouvernement bi lañ ko waroon wane ñu dem ñi jël ñu ñoom ñëpp ñu ne ah kii de wóolu naa foofu la commencé ñi nekk ñu ci loolu ñii ñu ngi ci nekk ci ay stratégie pour di teg seen i pexe pour mën a gagner élection yi voilà mhm. ci loolu lañ nekk mais nekk ñu ci man loolu li ma jàpp mooy en tout cas gouvernement bu bi moom ah, Amadou Ba ci boobu war na tiit ci boppam mhm. parce que gisuma ci gouvernement bi mu teg nii ñii nan la ñu mën a liggéey ba jox image bu bees doxalinam pour mu mën a gagner élection yi man gisuma loolu mhm. d' accord ah, alors li ci gën a fës it euh, bokk na ci paluk maître Sidiki Kaba teg ko ci ministère de l' intérieur et de la sécurité publique euh, kon mu war a organiser wot yi ñu wote goon gënu la présidentielle bi euh, yow ban jàngat nga am ci boobu lépp pal ci boobu nomination Macky Sall day wane tuwaat soo moom day wane xarañam ci politique moom opposition bi am nañu dégg moom amuñu dégg mais mi ngeen leen di tegalaat ay ndëgg sërëf Sidiki Kaba c'est un droit de l'homme Mm-hmm. adduna wërgal képp xam nañ ko te am jox nañ ko benn gis-gis bu rafet parce que nit bu la soree dëkku leen yow ni nga koy gisee ak yow ñi dëkk ak moom du ñu benn comme Antoine Diome ñu bëri réfugié nañ ko ñu génne ko nànk nit ñi fàtte ko ñu indi si di kii ñu ne waa mooy organiser élection moom ku am dayoo la ku jox cër doomu aadama la loolu moo ko ci tax te du boobu rek Aïssata Sall bi aussi pareil génne Ismaïla Madior Fall dugal ko parce que Aïssatou jigéen la boo xam ne ci liggéeyam ak ni muy doxalee relation internationale yi fu am tur la donc loolu moom Macky Sall daal loolu mun naa leen ko may ma may ko waa opposition bi su ngeen deful nank su ngeen di yeewu c'est trop loolu rek laa leen mën a wax parce que ay postes yooyu rek sans di soo amee dégg bu xóot wala gis-gis bu sori nga xam ni postes yooyu di changé am na lu muy tekki ak lu muy signifié donc c'est l'opposition ñu def ko mhm. kon opposition bi ñoom ban taxawaay lañ war a am vis-à-vis de cette nomination. mais récuser leen ñoom ñaar ñëpp. Mhm. surtout ministre de l' intérieur. Mhm. am na ci Antoine Diome teg fii Sidiki Kaba moom vraiment ça veut tout dire du même Sidiki Kaba nekk fi woon défenseur des droits de l'homme bi ñu buggee jàpp Karim Wade dugal ko ci ak du kan la ne bu Kaba ñu wax mu ne ministre de la justice mhm. moom véritablement léegi casquette politique la am ah. te mun naa leen wax benn affaire su jàppee benn affaire ba soobu ci du ci dellu ginnaaw donc man sincèrement entre les deux sax j'ai préféré Antoine Diop. ah waaw parce que Antoine sax mais ci Sidiki mooy genre yi nga xam ne nii voilà li ñu mën a téye pour def ko yow mën nga leen ko bañ a sax. Mhm. parce que kanam gi joxewu ko dafa sedd dafa dal. Mhm. te am na expérience bi aussi. te il est très proche de Macky Sall. donc li ñu war a laaj fi mu nekk nii mooy un ministre chargé des élections Abdoulaye loolu la def ba Macky Sall jox jot ci réew mi na opposition bi récusé na ñoom dañoo bëgg ministre spécial chargé des élections. mais est-ce que loolu Macky dina est-ce que loolu dina sotti est dina nangu lool. suñ ko defee di politique force la waxuma nag génn ci mbedd sànni xeer ak quoi que ce mooy ni ni ñu ko répété dem fekk ne ñun dañoo Macky Sall ministre chargé des élections moo tax mu falu ñun comme moom participé suñ organiser élection yi na wut ministre monsieur Sanogo duñ la bàyyi te waxuñ ci wàllu dundinu askan wi en tant que sociologue euh, li ñu seetloo mooy euh, soxna yi ak naanuk jëfandikoo alcool gi ñu gis ni léegi ci ñoom la gën a fësee euh, naan gi wullee ñaay lool ci ñoom ñu gën koo mën a def sax que góor ñi dàq leen ko fuuf lan mooy explique li ñu mel boobu le phénomène benn explication nee na malgré que saxul saxul te mënuñu ko ràññee nit ñaa ngi ci rey seen bopp sauf que nag foofu la foofu la limite bi question bi foofu la posé nakar yi ngay am sa dund blessure yi ngay am souvenir yu métti yi viol yi ngay am soo nekkee xale tentative de viol yi jafe-jafe yu métti yi donc yooyu yëpp am na ci ñoo xam ne ñoom jàpp nañ ni buñ ko bëggee noyé ci ne bar lañ koy lañ koy lañ donc loolu la ñuy léegi nag pour ñu jàll étape boobu ñoom alcool rek lañu gis loolu mooy addiction addiction soo demee ba ci biir nag dañ koy dañ koy tàmm ba dootoo ko mën a bàyyee mhm. pour loolu nag dañ lay faj faj bi mooy dañ lay accompagner ba ngay def ay cure de désintoxication maanaam di def lépp ba alcool nga koy wan ginnaaw nànk-nànk ba mën koo sori te loolu nag politique publique de santé yi ñoom ñoo ko war a mettre en place ay organisme pour nga mën ko jaar piscine bu tudd centre euh, pour man dañ ko war a à cinq département yëpp nit ñi am ñu leen di accompagner en psychologie et en pour ñu mën a sori euh, yooyu nga xam ne day yàq suñu askan parce que ñoom dañoo yaakaar ne dañuy defar mais finalement day yàq sa yaram ci wér gu yaram xel ci xalaat. Mhm. est-ce que euh, jafe-jafe àdduna naqar peut-être ci sëy ak pression sociale war na mën a war war na mën a tax jigéen làqatu ci ginnaaw sàngara. c'est pas une mhm. maanaam nekkul lay mais ñun nekk ñu di juger nit ñi. Mhm. si mën nañ ko comprendre ci li ñuy kii di autistique utiliser sàngara parce que nit doo taxaw bële rek ne ko non lii jarul nga koy def parce que nekkoo ci nekk li mu saf wala bi nee nañ ko ko macca ko xam waaw mhm. ah, léegi nag doo ko jugé ci wax ni jugé nit moom ku nekk su doon jugé sa morom doo rëcc mhm. ñun suñu discipline amul ay jugé ay nit da ngay def lépp pour comprendre lu tax nit ki def ko nga tendre ko perche pour mu génn fi te loolu la état bi war a doxal ci politique publique de santé Abdou Khadre Sanogo ñu ngi waaw maa leen di fay bu baax a baax a baax. psychosociologue laa nekk politiste aussi. nekk politiste euh, amoon mbégte lool euh, waxtaan ak yow tey jii ci suba gi euh, ñu kon ba beneen yoon incha allah ñu yendoog jàmm. incha allah maa leen gën a kontaan jërëjëf.